dañuy woote ndax ñu tabax sunu Sénégal ànd ak Mariama maanaam ci kaw ñaan parce que euh, tabax bi nekkul rek sunu coobare ak sunu mën-mënu bopp yàlla mënu koy may moo tax ñu ñaan ndax yàlla may nu pas-pas pexe ñu mën a tabax sunu Sénégal ci jàmm ak jubaay mooy message bi. dama bëgg nag loolu lay fàttali euh, ne ah, Sénégal gii dañoo dañ ko war a liggéey ndax. liñ ci séntu ak ndimalu yàlla ñu mën faa yegg mooy jàmm sax développement jëm kanam ci kaw justice maanaam ci kaw jubaay ak jàmm ji nga xam ne moo tax ba lépp mën a antu waaye noonu ñi nga xam ne ñooy dem Popenguine ku nekk war na def wàllam ba pare ndege pèlerinage Popenguine sunu pèlerinage la ñun catholique bien sûr ñu ngi séntu itam nguur gi autorités yi jàpp jàppale ñu parce que buy bu bu toll noonu di dajale ci bërëb am na ay conditions yi nga xam ne war nañ leen ko fa fekk ñu yombal leen pèlerinage bi